way gis nga neena la bisu tur borom lay toll Madam madame Kadama gi noonu ah gis nga ni la def waaw waaw Madam gi nonu, and ak monsieur waa gis nga gis nga lii moom amul dara lu koy fay dara dara dara dara dara dara dara dara sama yaay complexe la mo man da wax jëkkëram moo di bànni waaw wala déet ma ko sama yaay complexe la mi ni nii. fay naa leen. waaw maa ngi si jàmm bu baax. waaw di jàppale sama góor rek. wa di bañ rek ko xamne ne yërëm na ma bëgg na ma bëggul luma nakari wa deug yalla lañ laaj fu ma ko tàgg mu bayima ma la jo xamantene mom jëkuru ñëkënte la té li ngay gis ni amul dé mais lu mu am lu deug deug lu mu tuti tuti dina ka bokk ak man bu dé ben ñaar dërëm sa dina ñëw jox mako nama anta am xam nga bu ko neexoon du ko def su ma demee ba mel nii rek yàlla moo ma tax maa ngi koy ñaanal nag gudd fan ak wér yàlla may ko lu xamante ne taw dama mënul wax mais maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér maa ngi koy ah, gudd fan ak di ñaanal tamit sama goro bi si biir kër gi ndax moom tamit jàpp na si combat bi wax dëgg yàlla su ma sama sama ah? goro la maa ngi koy ñaanal moom tamit gudd fan ak wér di ñaanal sama papa timi gudd fan di ñaanal sama yaay ji génn ah, ah yalla yeenam ko xare ko àddina di ñaanal timi sama wuju peetar ga bi sama sama goro ki nga xamne sama goro la ba yaam gaño ba legi joy ñu goro ndax mom sama benen goro timi mu ngi si tan yahara mom timi tamit mu ngi fi ñaaw ma ngi ñaa ñi dal ñepp dal <laughs> dama wonul wax lu am jox ma xol ba fet lu mu am nit ñee ko lekk barke Seydina Muhammad yaa ngi si digg bi suñu laay waxam gerte alhamdulilah alamin yal na sa liggéeyam day wallu yal na sa liggéeyam day wallu barke Seydina Muhammad bu jooy ngay maa ngi lay fay. maa ngi ci jàmm. dëgg la. Laye li ma lay wax ci moom. baax am yar am teggin. dama koy fekk mu dëpp fii ci lal bi Anta toog fii la may wax ak Anta yëpp ci kanamam laa koy wax te bu ko neexoon mu dàq ma. wala mu may xoole bët yoo xam ne damay jóg dem damay ñëw fii wax ak Anta ci affaire u sëy ba mu jeex mu dëpp fi mu dëpp du gestu du ma xool barki sëñ Touba Mbàkke Anta ak Laye Ndiaye su ma waxul ci ñoom rek man du ma gor papay Anta mooy sama borom kër waaye li ma dugal ci ñoom barki sëñ Touba Mbàkke réccuwuma ko may nañ ma jàmm may nañ ma salaam xam nañ may kan teg nañ ma sama place mën nañ ko ba ñoom ñëpp tànta lañ may woowe Laye Ndiaye lu mu am soxla soxla bu ma taseeg moom muy daw day dagg daw yooyu nuyu ma ba pare soo ko dem doxi soxlaam man li ma gën a bëgg ci laay njaay rek mooy saada mi bu doon keneen bu xoolee saada am na bët bu mu koy xool rek du neex anta waaye laay njaay defu lool de dafa mel ni moo jur saada côté boobu rek la ma njëkk a neexee te anta tamit nekk doom ju baax nekk doom ju xam kii mooy sama tànta bañ nañ ko ba nee nañ ko anta yow sa papa jabar yu mu am nga def ko xarit man moom anta man sama xarit la man dal xamna ni ne rëccuuma lu ma doon am nañ yar am nañ teggin xotti ay yére dima ma jox jox ma respect te mënoon di ma wokkanteeg di ma xoolante loolu defuñu ko keur jabot ku fa dugg di sey rek bo fa toogee ca jabot jala la am na lu muy demee doo fa mën a de fa toogee rek ca jabot jala lay njaay liñ ci bëgg yalla ko ko may yalla bu mu reccu lu doon anta keur bayam nak yaatal fi anta bam mu ne ŋàpp defar ba mu benn mbokk ant di ñëw ci kër gi di rus mukk te mënoon koo dugal ci néegu baraago la néegu ñax defu ko de boo fi ñëwee boo xoolee anta da ngay kontaan parce que sëñ Touba Mbàkke man loolu laa xam ci anta ak laay njaay mbërëm mii nag yàlla na daan yàlla na yëkkati kooko ba ca kaw ni ko dabax ci suuf waaw kay <laughs> maa ngi sant bu wér mhm. ah xanaa di kontaan rek di ko ñaanal yalla bësam bi yalla na nekk njiglaayam wax deug yalla lay njaay sunu jabaru jaba jëkër la bok non la ko mëna ndax anta sunu jëkër la deug yalla mu yor ko bëgg ko lool nak ba gëmew ko so waxe mu ne antaay sama yaay ndax amatuma yaay anta nang neex na def yaay ndax ñun ñii kat ñu goro di ñaan di ko ñaanal yalla fu mu tëdd yalla na gënal fi mu anta mom neex na def yaay ndax ku am yar la ku oyof la nungu nañ ko def lu ne ta nungu nañ ko tek lu ne ta lepp ci mom la yeen say nak nit di nga oyof bañ yaakaar da nga do fekk na da nga bax bax gu upp la yalla boole ak lay njaay mi momen mu oyof lol wax deug yalla soufel bopam waccel bopam ñu diko sante dal diko ñaanal beusam bi yalla nek njiglayam yalla defal ko jamm defal ko ci lu kawé njortam di ko ñaanal nag ay drapeau yu bëree bëree bëree bëri di ñaan yàlla lépp lu mu bëgg ci bés bi yàlla na ko yàlla defal di ñaan yàlla mbërëm mii yàlla na daan ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa di ko santaat bu wér nag ndax gis na ni ñu téyelee ànd ak saada mi comme ni ko sama tante waxe wax dëgg yàlla saada jooyul dara namul dara ndax lay njaay yàlla na ko yàlla defal jaam daal ci barke Seydina Muhammad <laughs> lay fay maa ci jaam bis bi kay kontaan rek wóor na yàlla ndax Laye njaay moom lii du mérité na ko Laye Ndiaye téye na Anta fonk na ko teg na ko palaasam saada kadam lañ koy wax te noon na ne saada juruma ko du sama doom waaye téye na ko fukki loxo téel ñu Anta nag te yàlla tax xoolu ci ñaar dërëm xoolu ci ngir alal sa Laye Ndiaye lii mu yóotu ci drapeau bi yàlla na doon jël laayam yàlla na doon ay daraapo drapeau këram gi yalla nak fi leneen leneen fekk Laye Ndiaye ku bax la jox nañu cër respecté nañu xamna ñun ñoy kan respecté suñu mak ñun ku bëgg suñu fami ñu bëgg la ku ñu bañ bu ñuural la waye contane nañu torop Laye Ndiaye contane nañ torop ay fami bëgg Anta bay bëgg dé wax lu bax rek ci Anta la def kontaan nañ trop jërëjëf. fay naa la maa ngi si jàmm kay. dama. lan nga ñu euh, ku baax la. baax na trop te oyof na tamit te bëgg na Anta. te bu fekkee ne tamit daa ne Anta laa takk tamit te si moom laa yem. deful loolu dafa jël ay mbokku Anta yëpp téye amul mag amul ndaw ku si gis day kaf ree waxtaan te dina la dalal. den laa yàlla na ko yàlla fay xolam. ci daraja yonent bi te drapeau bi tamit yàlla na doon ay drapeau drapeau yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal. ak wéjuram fa mu tëdd tamit yàlla na ko yàlla yërëm xaree ko àjjana ak bépp jullit bu fekk yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def. fay nañ la. dañ sant yàlla. fa dëgg yàlla grand bu baax la fa dëgg yàlla sama mag la ñoo bokk ndey baay waaye sama mag la dafa baax am benn problème fa dëgg yàlla ñoo bokk ndey ak baay lépp lu muy def daf ma koy ñëw di ma ko wax si du ump dara du ump moom fa dëgg yàlla. yàlla moo ñu ko sedd moo ma ko sedd fa dëgg yàlla bésam bi xamoon naa dina ko am ndax dafa sonn ci làmb fa dëgg yàlla dafa sonn ci làmb boo la fa dëgg yàlla waaw moom maa ngi koy nii fa dëgg ma wax nag mënu ma wax waaye ñu ngi leen di leen gërëm <laughs>

ñi ñep ay magam lañ ma sha allah ay rakam lañ man mi jar baatam laa mais baax rek la xam ci mom baax rek la xam ci mom bu wax ci mom daal duñ fi juggé mom dañuy ñaan Yalla suñu borom li ko def Yalla nako jik ñu tuddé ko ay drapeau drapeau drapeau ba ay télé télé télé di fi ñëw di ko taxaw ci barke sayyidina Muhammad Yalla na jik laayam daal loolu lañ koy ñaanal ci barke Muhammad kay merci beaucoup maa ngi wax bis maa ngi commencé di nuyu yéen ñëpp di leen ñëw di leen sant waaw sama nijaay laa njaay moom nijaay bu baax la wax dëgg fa neex yàlla moom dara boole ko ak nit moom moom jàmm ak salaam rek laa pay waaw maa ngi koy ñaanal drapeau am yàlla nekk ay drapeau yu drapeau yu drapeau ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam incha allah yàlla na ko yàlla lafal cat te yàlla na ko fi yàlla bàyyi bis kanama kanama kanama kanam incha